ndax li nga xamante ne moom la président Karim Wade njëkkoon a indi projet boobu ñëpp xam nañ ne moo gënoon projet bii mu ñu indil junni yoon ndax projet boobu chinois yi pare woon nañu pour financer Sénégal pour que nun ñu am benn tëli boo xam ne day jógee dakaar ñëw ba Touba nga xam ne ñaari fois lay doon nga xam ne doo fay dara tey jii nag gis nañu ne tey li mu ñu indil mooy projet boo xamante ne nii projet la boo xamante ne ku fi dugg da ngay fay kon loolu jërul damoo ndax dama jàpp ne bu fekkoon dafa jëloon projet bi nga xam ne président Karim Wade indi woon na ko fi ñu wéyal ko kon tey boo jogee Dakar ba ñëw Touba autoroute lay doon boo xam ne doo fay dara waaye nag foofu li ñu gis mooy comme moom dafa bëgg waa Touba fay ndox te gis nañu ne waa Touba nangu ñoo fay ndox mu ne kon naa leen indil loo xam ne danaa fa jaar pour que waa dana danañu ma fay xaalis jàpp naa loolu moo waral ñu indi projet bi ndax ñëpp xam nañ ne projet bi waa baaxul pour Touba bi gënoon pour Touba mooy boo xam ne kenn du fay nun teew nañu tey sunu teewaay lenn rek moo ñu indi mooy xalifa général des mourides moo woote loolu moo ñu fi indi mais du président Macky Sall moo ñu fi indi teew nañu fi en tant que ay taalibe bokk ci famille Serigne Touba sëñ bi woote ñu ñëw wuy si loolu moo doonoon suñuy tànk gis nañu ne daal mandat mi jeex na dige li mbaroon na def Touba defu fi dara benn bëgg-bëgg la am mooy mi ngi jëm ci ab campagne amul lenn lu muy def mu ñëw indil ñu ay promesse ay 48 milliards ay wax yoo xamante ne waxi kasaw kasaw yoo xam ne ñëpp xam nañu ne campagne la tàmbali. kon li ñuy ñaan askan wi rek mooy nañu xippi seen bët yi xam ne ni ki nga xam ne toog na fi sept ans defu fi dara ndax lii mu fi indi du dara. yoon woo xam ne nit ñi ki nga xam ne dafa ñëw di financer ab yoon mais day xool axe bi nga xam ne jàpp na ne bu ko fa defee mu dox ñëpp xam nañu ne moom waxal na ko boppam. nee na Touba mooy deuxième ville bi nga xamante ne ci wàllu économique moo ëpp doole ci Sénégal kon booy def autoroute bëgg mu am xaalis fan nga koy jëmee. su fekkoonte ne mbuur la dañ ko yóbbu mbuur ah su fekkoonte ne ndar la dañ ko fay yóbbu mais nag Touba moo am chance mooy deuxième ville du Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne ci wàllu économie ginnaaw dakaar moo fi ëpp doole kon ku ñëw di wut xaalis war a investir ci ay tëli boo ñëwee Touba rek nga ko mën a def kon loolu jàpp naa ne euh, mbir la moo xamante ne suñu gis-gis mooy euh, amul lenn lum ciy wax ndax ay nit la ñoo xam ne dañu ñëw di wut xaalis su fekkoon daf ko defoon mu doon gratuite kon bu boobaa ñun ñoo koy njëkk a sant gërëm ko waaye nag ñëw di si xaalis bëgg ñu gëmloo ne dafa ñëw pour dimbale Touba loolu ay nax la leneen ni ci des yëpp nag muy tëli yi mu wax ci biir Touba ay promesse rek la yàgg nañoo dig sept ans mu toog ko li mu digoon Touba defu ci dara kon tey ji amatul lu muy wax liñ koy ñaan rek mooy ñu dem ci élection yi ñu jëlee ko fi ci nu mu gën a gaawee abal ñu ñu indi beneen président boo xam ne bu ñëwee dana defar Sénégal